salaamaaleykum àdduna wërgal këpp ñuy seetaan Tektal TV Tektal TV Sénégal ci YouTube bi ak page Facebook bi Tektal TV l'officiel Cheikh Talif ñëwaat ci jàngat boo xam ne que jamono ji lu gàtt lay doon mais lu soxal askan wi lay doon ndax dangay ngay seen télé yi di invité ñi ñuy wax ci sëriñ si nit ñi tamit. fii Sénégal amul kenn koo xam na que mën nga satisfaire ñëpp ma di leen wax ne nan bàyyi dal ci kaw télé yi parce que fésal lu baax bam ëpp moo gën fésal lu bon ba ëpp te ko fésal lu baax sax dadul doy ba ëpp di leen wax que ne bun di ñaaw njort na ni rafet njort parce que ñu indi ku mel ne Gana Mestre mu waxtaan ci Serigne Touba. waxtaan ci maam Cheikh Ibrahima Fall waxtaan ci sëñ Fall ñuy di ku mel ne sëñ Abdoulaye Diop Bisri mu waxtaan ci sëriñ Touba waxtaan ci maam Cheikh Ibrahima Fall waxtaan ci mag ñu baax ji sëñ Ndiaga Diop indi kii mu waxtaan ci El Hadj indi ki mu waxtaan ci Bitey ci waxtaan ci euh, Baye Niass keneen waxtaan ci Cheikh Sadbu keneen waxtaan ci Limamou Laye ma gis ne lii bu dul ngëneel dara du ngëneel mais Sénégal dañoo doon dëkk boo xam ne que bu football xewee ñëppay wax. bu làmb xewee ñëppay wax bu football euh, politique xewee ñëppay wax te boo leen bëggee wax loo ci lu ñëwagul kenn du la mais lu teew rek la ñëpp di wax di wax ne télé yi du danoo bàyyi ba koor jot ñu ne xaaral ñu def seen programme bi ci lii siin yii ñuy def il faut ñu comprendre télé Sénégal danaka ñëw nuroo buñ xëyee dañuy def matinal émission matinal bu matinal bi rombee tuuti ay onze ni di ñëw ay xeetu ay ñoom mbay ak ay xeetu Eva Trac ay xeetu Francesca ak émission yooyu jëm ci ay jikkoo ay sëy ay yooyu moo ci topp bopp bu weesoo ñëpp xam na ne journal moo ci topp journal bu paree rapport yi ñooy ñëw rapport yi buñ paree ngoon gi comédiens yi gont buñ paree journal ñëwaat télévision Sénégal nii la baaxoo kon buñ bàyyi ba koor gi rek ñu ñëw ne dañuy jaxase sëriñ si te et puis di wax que ne Euh, muy Serigne Touba muy Alaaji Malick muy Limaamu Laay ak ñépp wenn yoon la woote muy jëm ci yàlla léeg nag mën ngaa jëm liberté 6 jaare ko Sacré-Cœur kii jaare liberté 5 kee jaare kii mais l'essentiel mooy da nga àgg kii mën naa dugg car rapide kii dugg Ndiaga Ndiaye kii dugg njëmbat kii dox kii dugg moto l'essentiel mooy da nga àgg ñépp bokk euh, penku bu ñu jublu ñoo bokk Fatiha bu ñu tari ay détails jërul nit ko bëgg ko parce que yenn yi boo ko tey bii tamit ku ci waxati ci télé bi ba nit gis ne lii mu wax ëpp na jëlu ngay def vidéo di ko tontu ca télé ba wutal numéro am ah man na fii de gis naa ne juum nga fi tuuti yokk ko xam-xam mu wax wala li mu wax mu xam fu mu ko teg mu doon sutura mais woon nit ki dem defi vidéo ak yu mel noonu. boobaa nit ci ak teggin ak sutura mais télé yi wax dëgg yàlla lii ñu def gërëm leen moo gën euh, di dal seen kaw. et puis Pape Cheikh Diallo tamit euh, maa ngi wax benn gis nga booy def lu baax ban lay roy santal bul wax mukk toppandoo euh, neen rek ñi nuy roy parce que roy ku bëgg lu baax moo koy def toppandoo ku soof moo koy def parce que toppandoo moom ku gëmul bopp moo def mais euh, di def lu ñu roy rek c'est loolu dafa rafet trop daal mais mbirum diine la nan ko rafetal te xool liñ jàpp ne moom lañ ci mën a segg tax ndax mën ngaa dégg ci Serigne Touba loo mosul dégg. xam ko mën nga dégg ci alaaji Maalik loo mosul dégg nga xam ko mën nga dégg ci Baay Ñas loo mosul dégg nga xam ko xam-xam boobu mën na laa téye ba déwén ëllëg boo ci yokkaatee leneen mu kii parce que tey yéen ñi di seetaan ñi ci bari xam nañ Cristiano Ronaldo ñaata ballon d'or la jël Messi ñaata ballon d'or la jël ak nangam kon war nañ xam tamit suñu mag ñi ñaata lañ def ci lu baax ñu doon roykaay bu ko defee nit ki bu xamee ñaari bu mu roy nag moom la bii fii lay mbirum àddina bee day continuer pour lu baax yokk man daal li ma gis lii bu dul koor sax télé yi dañ ko war a continuer fésal suñ mag ñu baax ñi seen liggéey te xam ne ñoom rek am diine ñoom rek am uh, ndam ci liñ doon xeex mais ñeneen ñëpp li bëggoon ci ñoom am nañ ko kon ñu diine ñi rek ñoo ci am ndam na leen fésal bu baax a baax te xam ne diine mooy star bu mag bi moom la koo xam ne ku tiit soxla ko ku jaaxle soxla ko ku fi jóge soxla ko kon diine nan ko gën a fésal te du man dong nag bokk ma caa ko gën maanaam nit ki buy roy na roy lu baax bul bu ñu boo lu bon bu ko ñëpp doon def bu mu tax nga def ko ndax du ko tax a baax lu baax bu ko ñëpp bàyyi woon na ci far lu baax ndax yemut ak lenn te xam ne àddina bi nag nit ñi léegi ñàkk nañ jot goo xam ne que ku dee loo leen jege-jege boo dee ci journée bi seen soxlay ngoon moom dañ koy doxi boo dee ci suba gi seen soxla suba dañ koy doxi amatuñ jotu temps tiit bu dëkk bu dëkk doon am fenn nit ñi dañu tiit lu yàgg léegi dañuy yàkkamti dem doxi seen soxla ci armée rek la ñuy wuyoo naan maa ngi ñëw ak yu mel noonu kon lu aw yiw loo deful mu am mu yiw mu topp la wala nga def ko ci jàkka wala juma wala ci daara loo xam ne day na di la indi njëriñ foo nga nekk perte nga parce que nit ñi amatul temps sax tiit bu baax ci dee wala ñaanal ku fi jóge ak yu noonu kon nan gën a farlu suñu diine te ki lay wax diine sax même oustaz bi bu dee dafa sikk bul toppatoo sikkam yow njëriñ yam lay wax rek parce que kii naan sàngara di la pee sàngara kii naan sàngara di la tere sàngara moo ko gën kon bul gis ne ah pourtant waa ji li muy wax nii moo fi dàq nangam yooyu bu ko toppatoo yow lan la wax bu dee njëriñ la jëlal bu la na nga bàyyi ko fa kon daal nan remercier tele yi muy Pape Cheikh Diallo di waa Sen TV Grand Plateau di Walfadjri euh, nu mu tuddati Grand Soir di 7TV télé yépp li ñuy def 2STV tous RDF toog leen seen kër ku ne ngi def DTV euh, RTS lépp wax lu baax loolu nan leen euh, wan ne diine amaan na ndam pour temps ci audiovisuel bi bi ñu ko jox ci heure bi ñu gën a fonk ci télé bi jox nañ ko diine kon loolu moom sant leen te gërëm leen ci leen wax te ñaan yàlla muy continuer mais pas kenn di critiquer télé yi gars yi waxuñu pour jaxase waxuñu pour kii nag dañuy wax pour mbaaxu kenn di leen wax tamit ne bu waxat yi lu baax na ñu njëkkee leen sëriñ bi ñu jàpp ne moo war a gën a féete suuf kenn féetewul suuf sax mais ci turam moom la nit ñi gën a bañ a xam. ñooñu leen war di njëkkee jël leen ci émission yi njëkkee xamal leen kan mooy kii lii leen liggéey njabootam xam ne am nañu sas ndax seen maam lii la fi bàyyi ñu gën a farlu bu baax a baax bu ñu defee loolu léegi nag ëllëg ñu indi ñi xam na ko ñoom lañ gën a xam parce que concert Youssou Ndour bu amee sawaay euh, Youssou Ndour bu njëkkee way sawaay yeneen euh, gars yi bu ñuy kii kenn du leen fa xaar jotaay ba day tas et puis ku war ñëw ba wàcc loo war te xeeb ko am na yooyu buñ la waxee leen li ci yenn kilifa yu mag yi ba nga dégg ko pare buñ lay waxaat mënatoo dégg lu gën a tuuti li nga doon dégg kon na ni njëkkee li gën a suufee li ñu moo gën a suufee parce que diine kenn du ci yëngatu di suufee mais seen moom la nit ñi gën a umpale ak seen jëf nga njëkkee loolu ba fésal ko di jóge ci suuf jëm ci kaw moo gën jóge ci kaw di wàcc ci suuf parce que boo jógee ci kaw di wàcc ci suuf rek nit ñi ni ñu ko waroon consommer day jafe ndax ku war ñeey ba wàcc moom loo war a te xeb ko di wax ne daal diine kon dafa laaj euh, farlu ak tamit bàyyi xel ni yow mii di commentaire sax ci vidéo yi parfois léeg-léeg nga gis benn commentaire ci benn vidéo ca suuf ga ko commentaire am na kooku tey bëgg naa dindi commentaire bi ndax lan mënatu ko dindi wuy ji na boromam ñu calculer ne àddina lépp dafa nekk ci nettali nit ki nag du doo bàyyi ba nekk euh, ci mbedd mi di yaru dañ lay yar nga nangoo yaru wéyal loolu am loo sañ am loo sañul am loo jomb am loo jombul bu ko defee nag am na famille yoo xam ne boo ci bokkee nga xam ne que dara du dara nag bu la neexee lu la neex nga def mais lépp solo ci nit daal mooy kersa ak diine ak maandu ak dal ak bañ a temps ci lu amul kon nan euh, kilifa yi amuñu kudul ñoom nit ñuy fonkee nga xam ne koo ci laaj papay diw ci ñi yëngutu ci caaxaan ak yooyu nit ñi xam nañ ko diw fu dëkk nit ñi xam nañ ko kon noonu nag lan war a xamee suñ ñii nga xam ne que muy Serigne Touba El Hadj Malick Baye Niass Limamou Laye ak yépp nga xam ne ko yoonu yàlla lan woote ñooñu dafa doon droit xale yi xam ko mag ñi xam ko euh, li ci doon ay rumeur nga xam na que doon nañ ko nettali te ëpp ak xëru taalibe gu ëpp rek a koy doon ñu bàyyi xel loolu kenn tamit nit bul taxaw di werante ci mbirum tarixa parce que boo ñu werante yaa ngi tooñ nit ki mënoo ko convaincre ba mu bàyyi sëriñam jàpp sa sëriñ kon rafetal rek a ci am bu kenn wan tamit ne maa fi lu kenn sëñ te wax na nga wax lu kenn sañta def nga def ko yaay dox fi yi si yoonu yàlla lan wute ñoom seen bopp gën a lente woon seen biir amoo benn kilifa diine yi nga doon gis ñuy sëriñ Touba muy Limaamu Laay ñuy Alaaji Maalik nga ci gis këram ba mu doon yëg day yëg ci escalier ñoom mbiru àdduna yi ngay leen di jiiñ soxlawuñ ko taluñu ko kon bu ci nit di wax ci moom ban indil koy xéwal sax yow mi buñ ko def concurrence du concurrence ni tey daanu am yéeneem ne maye naa lii loolu nag mais nag li ma ci bañ tamit bëgguma tamit nit di seetaan tamit di puukare seetaan benn débat rek mu neex nga ne maye naa naa nga mu pare di ko bëgg si waral nga def ko te fekk defoo ko loolu day ëpp daal nit ñi nañu bàyyi xel ne ñii di ñëw dañu ñëw ngir wax xam-xam euh, ñoom it benn pression ci seen kaw buñ ne waa famille bee defal na leen ñii tamit lii force la mu mel affaire ndawtal boobu moom day ëpp bu kenn jaxasewul dina ji kon bu nañuy te nit bu juumee nañ ko jéggal lam juum te bañ di topp euh, li nga xam ne ka mooy nit ki wax saa mots yu baax nga gis ci benn araf bu dëng nga wax bu dëng boobu fàtte la loolu la ëpp. abonné leen Tektal TV ci YouTube bi Tektal TV Sénégal T E K T A L espace TV euh, Tektal TV Tektal TV Sénégal ak page Facebook bi Tektal TV l'officiel Cheikh Talif doon leen jàngatal nii indi leen njëriñ yu mel nii te dinañ ko dëkk di ko koy incha allah jaajëf